ñoom ñu bëgg cee barkeelu barkeelu bi nag mooy dañoo bëgg nga jox leen digal ñu bind ci kaamil yi sëriñ bi ci téere sëñ bi ak xaside yi ndax nit mën naa nekk ci àll ba dégg sëriñ bi te du ko xam waaye buñ bindee ci téere sëñ bi lim jàngale ak xaside yi mu def koy yoyent bi buñ ko jàngee ñoom ci seen silmaxa googu dina mën a xam kan mooy sëñ bi léegi nag ginnaaw yaa bi tax xam ñor la wan la mbind mi te ñaan lan ndigal nga may leen ndigal ñu bind ay ay ay ak ay téere sëñ ma xam bu dikkee man cee jàng loolu mooy seen métier sëñ ñëwoon nañ fi tey fii jëkkër kër Serigne gi fekk fi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifa général de Mouride yàlla na ko yàlla yokk wér te guddal fanam baax te yeneen yi mu am ci liggéeyal Serigne bi yëpp suñu borom àggale ko barkeb Serigne Touba waaw te dañ fay ñëwoon indi fi waa école bi nekk Thiès te silmaxa yi nekk fa sun borom defoon tey nag euh, dogal ñu ñëwoon fi tey siyaar si woon sëriñ bi bi ñu ñëwee siyaar si woon sëriñ bi nag léegi wanoon ko benn kaamil boo xam ne dañ koo bindoon ci mbindum baraay mm, bi nga xam ne silmax yi moom noonu la ñuy jàngee léegi nag bi ñu wan ko sëñ bi nag doon ko ñaan digal ñu bind ci ay téere téere xam-xam wala téere xasida yi nga xam ne sëriñ bi moo ko bindoon léegi nag pour sëñ bi daa wootee xam-xam ñoom ñu ñëw wane ci seen participation bu buñ ko defee yóbbu ko ci université bi pour képp ku dégg sëñ bi te xamoo ko boo dikkee boo jàngee ci xasida yi wala téere xam-xam yooyu da nga mën a xam sëñ bu baax sëñ jibi bi paam nag mi ngi nii nekk suñu wet moom itam moo jiite délégation bi ñu àndaloon ñu ngi sant yàlla bu baax baax ci ñëw fii euh, ngir doon àggale suñu ziar ak suñu nuyoo ci alxalifa euh, Cheikh Mountakha li ñu ñëwoon nag indi di nekkoon suñu tànk mooy ñun en tant que mbootaayu silmaxa indi suñu contribution ci li nga xam ne moom mu ngi koy def ci wàllu développement wu xam-xam loolu nag euh, ci anam biñ ko bëgg a defee mooy ñun suñu wàll bi nga xam ne moom la ñu féetee mooy ci njàngum braille ndax dañu seetlu ne euh, njàngum braille silmaxa gaa naam bu njëkk ba daan na jàng di tari di mokkal waaye léegi comme jamono dafa dox yàlla jox ñu jëmtukaay muy bindukaay itam ñu fexe loolu mën a yéwén fii ci biir dëkk bi ñu mën koo tasaare ndax kaamil bii ma téye boo ko bëggee am dangay ngay koy commandé ji biti réew te itam loo jéggaane daa fekk daa amul sa dëkk ñu ne woon nag dañ taxawal benn unité boo xam ne fii ci dëkk bi day féetewoo di mool kaamil yi ak bindu mag ñi ba nga xam ne su boobaa ñi nekk fii danañ ci mën a gën a mën a jote lu dul lekk ñu jàng di la ko sawee comme silmaxa yu njëkkee nañ daan jàngee ndax comme jamono dox na te itam lépp rek ci jàppandal suñu borom la donc dafay jaadu te jàppandal googu pour doomu aadama yi la dafay jaadu ñoom ñëpp aussi ñu def ite jëm ci loolu kenn ku ci nekk nag ab askan moom buy dox kenn ku ne fa nga féete fi nga mën mënee rek ngay indee sa wàll ngir nga xam ne penc mi dañ ci gis loo xam ne dana mucc ayib loolu daal moo ñu indi woon ci sëriñ bi euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci anam bi ñu dalalee ak itam ci kàddu yi ñu wax euh, dan dolliwaat nañu Euh, tàngooru yaram ba bu ñu dooleetee lu ñu daan jéem a def benn danañ ko yokk incha allah suñu kéem kàttan ndax tam chance la du du njàmbaar nga ñëw tase ku mel noonu mu dolli la barke ci li nga xam ni moom ngay yëngatu loolu sant yàlla la bu baax pour ci suñu kuréel gi ak euh, ñi nga xam ne ñun moom la ñu àndal maa ngi ànd ak suñu mag bu ñuy wax Papa mooy trésorier wu association bi ànd ak euh, suñu frère Abdou sañ moom mooy ki moom euh, dafa xam-xam dafa màcc ci wàllu alphabétisation fonctionnelle waaye itam yor wàllu partenariat ak jokkalante ci biir euh, mbootaay gi nga xam ne moom la ñu kii man nag njaam su xew si man moom la ñu sas may may yombal euh, ni kuréel gi doxee pour ne pas man maa ko man maa ko jiite. di dellu di sàkku encore ñaan ci li ñu yéene daal yàlla yàlla mottali ci ñaan gi mu ñaan yàlla nañ ko yàlla defal ba lépp doon jàppandal ci suñ imprimerie boobu ñu bëgg taxawal pour jàppandal. mbindum mag ñi ak ak alxuraan pour silmaxee man koo mën man man ko mën koo liir